أشهد أن محمد رسول الله أي الصلاة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 maliki yawmi diin yaxkumu ala ibaadihi bil adli wal ihsaan iyaaka naabudu ay naqusuka fi kulli waqtin wa awaan wa iyaaka nastain ala al aadaai wa nafsi wa shaytaan ihdina siraata almustaqim bil istiqaamati ala al iimaan siraata allazina anamta alayhim min ahli alhidaayati ila tariqi aljinaan غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان الله أكبر allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود بكل لسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث في آخر الزمان اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد سند العظيم سيد القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما متلازما بطول الزمان وسلم تسليما كثيرا أيها الناس يرحمني الله وإياكم والمسلمين بأم القرآن أين الآباء والإخوان أين الملوك والعلماء والغلان أين قضاة الشهود أصحاب التيجان صاروا إلى بطون اللهود وأكل لحومهم الدود وتمسكت منهم الأكفان أما والله لو استطاعوا لأجابوا بسنيه جزءا وفي ثقلان من ثقلات الموت ونص غروه من الجسد أشد من ثلاثمائة ضربة بسيف وطعنة بسنان وأعظم من هذا كله سؤال الملكين عن رب المجيد والنبي المبعوث في آخر الزمان فإن أجابهم على التحقيق والتصديق والإسهاد فتح له باب من أبواب الجنان وينصرفان عنه وهو مسرور وفرحان وأما المنافق فيأتيه في قلب في قبره كلبان هذا ينهزه وهذا يلعنه بكل لسان ثم يأتيه ملكان غليظان شديدان ويقولان له من ربك ومن نبيك وما دينك من بين الأديان fa yaqulu hada rabbi wa yushiru bi asbuhi ila shaytan fa yadribanihi darbatan tatasahatu min isami al asnan summa yaftahaani lahu baaban min abwaabi aljinan wa yansarifaani anhu wa masrun farhan wa ama almunafiq fa yatihi fi qabrihi kalban hada yunhisu wa hada yaranu bi kulli lisan summa yatihi malakani khalisani sadidan wa yaqulu lahu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma diinuka min bayni addiyaan fa yaqulu hada rabbi wa yushiru bi asbuhi ila shaytan فيضربانه ضربة تتساقط من اسم الأسنان ثم يفتحان له باب من أبواب النيران وكيف وكيف يفرغ من مات والرب عليه قد بان واتقوا الله قد تقوى في السر والإعلان الحديث قال عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين الصبح والإساء ولو يحلمون ما فيها من الخير لأتوهما ولو حبوا وعنه أنه قال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 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عند اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 asalaamaaleykum. laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu min sharri ma sana'tu wa الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر الخلق وخالق الإصباح وناصر الموتى وباعث من في القبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. ok ñoo ngi leen di nuyu kenn ci turam ak santam ñoo ngi leen di balu xaq di leen bal xaq di ñaan yàlla boole ñu baal. yal na nu yàlla boole yërmalaanum sutura suñ jullit tey gi yal na ko yàlla def muy jullit njëggal mutlax ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi teew ñëpp ak ñi fi teewul ak ñu romb bi ñu ñëw ñëpp yal na yàlla faj seen aajo ñu dellu rek def ak fàttaliku gu gàtt ci dénkante li mu wax rek usikum bi taqwallah fa inna fadla ma tawassala bi al abdu al iman ñu ngi leen di dénk ragal yàlla ak nangoo topp yàlla ndax ragal yàlla ak nangoo koo topp jàmm bi lu muy am ëllëg ci la koy amee waaye safaanub loolu it jàmm bi lu mu ñàkk ëllëg looloo ko ko xañ li ëpp ci jàmm bi nag lu ko gën a jokkaleeg boroomam mooy gëm gëm ba pare rek nit sax booy wax ak moom bu dee wax ak yow te gëmul li nga wax dala bàyyi dem boo gëmul li muy wax doo ca bàyyi xel kon nit sax bëgg na koo gëm ci noonu waaye yàlla itam gëm ko moo la mën a eggale ca moom boo dee dem jëm te moom te gëmoo ko doo egg te da nga sonn loolu ci yoon wi waaye jihaat ci yoonu yàlla nag ak wax wax ju baax mooy ubbi say bunt ku ko def rek say bunt mën naa ubbiku bunt boo fëgg rek mu ubbeeku loo bëgg yàlla def ko insha allah ñu góorgóorlu nag di nangoo taxawal julli ndax mooy diine lu waaye mën a def ak loo mën a loo ca sonn te taxawaloo julli amoo diine ñàkk nga dangay ngay sonn rek ñuy joxe sàkko nangoo joxe asaka ci li nu am nañ ci nangoo joxe asaka ndax farata la joo xam ni ci yàlla la jógee di woor itam weeru koor mooy dox sa digganteeg mbugal lépp looy lor mooy dox sa digganteeg moom ko bu ñu ko mënee tam ñu aji màkka mooy juróom ponk yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala farataal na ko moom la lay wax nga aji màkka kooku itam day dàqu ñàkk boo ko defee rek yàlla mën naa boo ko dee def rek yàlla mën naa def ak ñàkk moom da ko sori te it day xoos ay bàkkaar ba mu set ñuy jokk ak mbokk itam yaakaar naa dafa mel ni sax lii nu dajale fii jokk mbokk la am ko am wëllëre mu taxawal bis bu ñu fi dajee mbokk yëpp nuyonte saafante gan yee dëkk yi def naa jokk mbokk la kon mën nañ koo wéer foofu kon yéen a ngi si yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla nangu ah dina dox ak mbokk itam dana yokk aw fan dana guddal aw fan boo ko defee itam sa alal day sa am am day yokk day yokk wërsëg itam day taxitam itam sa mbëggeel ak say mbokk dolliku da leen bëgg dañu la bëgg ñuy saraxe itam nangoo am li ñu am nu nangu cee joxe di ci joxe sarax ndax dacaa caa bokk nag saraxub secret moo gaaw ci xoos bàkkaar ñaawti foo xam ni ci xam-xam borom xam-xam yaakaaroon ni kenn mën la koo jéggal saraxub secret moo ko moo ko mën moo mën a dindi ñaawteef boo xam ni ëlëmoon na ñëpp boroom xam-xam yëpp waaye mooy fay itam merum yàlla merum yàlla ku ne xam na ni musiba la waaye saraxe saraxe kenn yëgu ko dara taxul lu dul saraxe moo yàllaa tax nga joxe ko lu loo xam ne da nga koo joxe ngir la diw def lu da nga koo joxe pour aaji bu ko waxul bu ëllëgee doo ko jox danga nga ko jox te bëggoo sax mu wax ko te muy dëgg ci yow day tax jafe-jafe yi songoog yow ci àdduna li fi di jafe-jafe bari lool moom mooy doon mbër mu taxaw sa kanam di songoog loola yow ngay dox mel ni garde lay doon benn tiitaange dootu dootoo ko am ñuy góorgóorlu itam bëpp di tudd yàlla na nga tudd yàlla te nag laa ilaha illallah moo gën ci sikkar yi ñu xéer ci li nga xam ni yàlla dig na ko ñi ko ragal lépp loo xam ni dañ lii daal yàlla dig na ko ñi ko ragal góorgóorlu yow ba ni faaw am ci lii daal ku ko def yàlla nee na da nga góorlu ca ba am ca ab cër yow yàlla kat li mu digle mooy dëgg waaye lu fi lu fi nit wax nit a ko wax rek nañ xool ba xam nit ka waaye yàlla moom li mu wax mooy dëgg ñuy roy itam ci njubug yonent bi sallallahu alayhi wa ñuy roy ci njubug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ngay def nga xam ne lii ci li yonent bi indiwoon la nga góor góorlu ci nga xool ba xam lii li yonent bi indi woon la wala du moom nga bu dul moom nga bàyyi ko fa waaye yenn yi dox ci la neex rekk la bari na ci lu ñuy dox lii fi mu nekk nii du njubug yonent bi sallallahu alayhi dox ci njubug yonent bi sallallahu alayhi nag mooy ngeen ngi jub mooy roy sunna itam te mooy sunna si gën ngeen ji sunna mooy nga fi fi yonent bi jaaroon nga di nga jaar fa waaye buñ ko wutalee ñu ñu ko féetalee ci ñàkk xam wala ci wax donte yaa nga ci sax ci ñàkk xam nga waxee neneen ndax dinaa koy dégg kee de ibaadu rahmaan la kee de ibaadu la waaw yow loo doon yëfër ibaadu mooy jaamukatu yàlla ki nangoo jaamu yàlla di julli di woor di mag ñi mag ñi seen tànk ci sunna lañ ko tegoon di ci góorgóorlu waaye yow nga ne foog teg ne kee kee koy def nga la moom ne ibaadu la yow loo doon ibaadu nga di ibaadu rahmaan mooy koy jaamu yàlla allasina yamsuuna ala al ardi hawnan bu ñuy dox suuf dañuy toroxlu du ñu kiting kiting ka damm mbagg ka jaay yu kenn xamul wa isaa xaatuhu jaahiluuna xawlu salaamun ku leen tooñ ñu baal la walazina yabituuna li rabbihim sujadan wa xiyaaman julli la ñuy fanaane moo xam guddi gi yëpp lañ koy def wala ñaari xaaj wala benn xaaj bi wala ñaari rakkaa yu sax sax yàlla xeebu ko ibaadu nga hmm. ba aaya ba jeex nag ñuy ñaan yàlla yàlla leen kon ibaadu nga bu ko jiñee ci kenn naan diw ibaadu rahman la yaa ngay gaañ sa bopp ci wax te yëgoo ko ibaadu nga ndax di ngaa julli tisbaar fas yéene julli tàkkusaan kenn moomu ko waaye koo ko féetale rek ñu jéem a xam téereb yàlla bi nag te di ko jàng ndax mooy gën ji wax yenn ci grand place gi giñ di waat saa waaje man seen waaji saa waa ëpp doole saa waa ji mi nangam nangam bu ñu defee nangam day gañee day def foo ko teg te lépp li ñuy lor li ñuy lor jullit bokk na ca wax loo xamul ak def loo mënul ak nettali loo fekkewul nettali loo fekkewul ba di ca géñe ko waat wax loo xamul dara li nga xam sax wax loo wuñ la lépp nga wax ba dugg ca la nga xamul def wax loo mënul ne nag moom mën naa wax lu mënul waaye mënut a def lu mënul kon li ëpp ci lorub jullit lii la di nettali loo fekkewul nii la def nii la ko def moo def lee moo wax nangam yaa ngi lor sa bopp boo ko fekkee sax kenn wax la wala lépp waaye bari na ci génn fii daal di fekkee koy nettali lu fekkewul da nga fekkee dara nit di ko nettali nga dëkk ni xanaa lii du la ma fekke woon soppi ko def ca lu la neex waxe ko nu la neex yàllaa yàllaa ngi la tiim yàlla ngi lay fuglu bu ñu defee ci làmmiñ rek la yem kon nañuy def lu nañuy wax lu xam te lañu xam sax ñu wax ca la ca am njariñ di wax lu ñu man bu jëf jotee kenn du ñu yedd ñu mën koo jëf te ñu fexee xam diine nga fexee xam sa diine nag te di ko dund gëstu ko gëstu leeru yonent bi sallallahu alayhi wa di ca dox boo ko defee sab dënn ubbeeku nooy nepp waaye sa diine nekk boo jullee sax boo yow bu sa jullee yàqoo sax mënoon koo defar bu ñu la takkoo la woon sëy problème am kaay sang néew bi nga daw mënoo koo sàng xamoo ñaata jàngaay la naan damay gëstu histoire Omari Ndaak dama gëstu histoire Alaaji Malik sa diine ji histoire bi boo xam ne lu mu lay jariñ du yàgg-yàgg ba nga roy ko ñi ci xam ne Omari Ndaak doon def waaye euh, bari na waaye duñ ko def kenn du ci foog jaasi fii jàkkaarloog sa morom te te yàlla tax amul bu amee ko ci def àdduna tax waaye du yàlla gëstu leen diine ji seen julli yi ngeen mën koo defar ba di takkub say géet mën ko hmm. sangub néew ñu man ko xam naa dafa mel ni ni ma ko gisee ku mujj dee yàgg gën a ñàkk sens gone yi kenn jàngiwul di taxawaalu ñooy mujj di taxawu néew yi di suul kër kër gi dal xëpp suuf dem seen yoon dafa mel ni danoo gën a miin fii rek nag hmm. bëgg fee yàgg waaye dafa mel ni ku mujj dee yaa gën a ñàkk sens jullee gi gaa yàlla xam doy na sang bi dañuy fatam fatamal ay gone yi suul te jàngiwuñu te ñi pro ñi préparé pour def formation boobu nag lu ne la ñuy dal lu ne la daj ñi préparé pour formation mën a sang mën a sang mën a jullee lu ne la ñuy dal mooy ñan mooy donga yi donga yi ñooy def formation pour mën a sang niiw mën a tudd doom mën a nangam ñu koy def ñëpp ay donga la ñu ca la ñu jàngee waaye donga lu ne lay daj donga baa ko sàcc donga baa ko jël donga baa ko wax donga yi nangam nangam nangam mooy donga bi dañuy def formation pour la ñaanal la <coughs> yàlla nangu kon nan fexe xam suñu diine fexe xam téere yàlla bi di ko jàng lépp looy nettalee ko wax waxi yàlla jee gën a wér ahsanul xasas wa isaa xuria alayhim alquran fastamiu lahu wa ansitu bu ñu jàng alquran na ngeen déglu cellantu waaye li xew léegi bu ñu jàng alquran ku ne yaa ngay sërab sërab bi ne ci sa ka defe ne moo tax nag te tàngiwul <coughs> moo jaar ci biir ne naan lu ngeen def ci kaamil bi <coughs> defe na ne moo tax ne kat mu ngi ci kaamil te nekkul ci dara day yàq parce que bu ñuy jàng alxuraan nañu déglu waaye la xew jàng alxuraan ku ne def la neex ba jàng xatmu ñu ni déglu leen ñu ngi jàng xatmu bi waaw yow ngay lekk raxasoo pare ñu ne tàngub raxasu di indi lu mu lay jëriñ alxuraan la ñu war a déglu waruñoo déglu xatmu bi xatmu bi ak ñaan la nit a ko ci def nit ñi bëgg lu baax ay kilifa ñoo ko ci def waaye lay yàllaa ko wax te wax na bi mu ko waxee wax na ci ba pare wa isaa quri'a alayhim alquranu fastami'u lahu wa ansitu bu ngeen ko defee la'allakum turhamun bu ñuy jàng alquran déglu leen te cellantu boo mënee yor jukki yoralub jukki soo ko mënul waaye déglu ñuy jàng waaye balaa bis bee del si da nga fekk fu ñuy wàccee kaamil nga gis ñu ne ca ginnaaw di wax ci politique bi demal rek balaa bis bee del si da nga ko gis ñuy jàngub kaamil ñee na ca ginnaaw naan waa ji sàngam waa ji nangam waajee ko man waajee def lii nangam te la ñuy nettali kenn fekkewu ko ci kon wax yàlla jaa du jeex ku bëgg a wax laan ba naasi yaakaar naa ni danga boo boo paree danga danga tal leneen muy tëdd nelaw noppalu <coughs> yàlla nee na jàng bu ñuy jàng alxuraan alxuraan laa wax de waxuma hadis waxuma arab oo na ngeen déglu lahu ñeel alxuraan yi wa ansitu ngeen cellantu toroxlu bu ngeen ko defee la an lakum ndax yàlla turxamuuna ndax yàlla nag bu ko waxee lu am ba pare la day waxee noonu rek pour nu mën koo dégg nun daa wàcc ba tolloog nun di wax mu naan laxal lakum ndax la yéen waaye moom leer na ko ko def taxe ki gën a laabire boppam bëgg boppam nag di dimbali boppam mooy ki gën a nangoo topp yàlla waaye ki gën a bañ boppam bu dàqal lor boppam nag mooy ki gën a mën a mooy yàlla waaye wa man yutiihi llaaha toppkatu yàlla xelam day dal xolam day dal boo ko gisee sa xam ko ci kanamam day bég foo ko gis ci mbégte nga koy gis waaye mooy katu yàlla foo ko fekk day néew doole day ragal day firfiri te ci réccu réccu dong bu réccu lit kanam dana réccu ji ñi néew doole nekk sunu biir dañ leen di jàppale waaye li xew Sénégal moom boo dee raam ñi taxaw ngay bër bëri ba bëgg a jóg ñu wéq nga daanuwaat borom alal yeeg ñi ñàkk moom noonu la demee ñoom taxaw nañu jon na seen bopp waaye boo arrière boo bër bëri ba ne yaa ngi jóg ñu këdd nga eggaat noonu la noonu la nekk ak nun nun néew néew ju doole yi ñi am lañ nekk ak juróomi dërëm bu ngeen ko séqee yaay bàyyi wut di denc nit ku liggéey bañ ni am na am na am na milliard milliard jële woo ko ci mbay xanaa commerce day fi tane te commerce gu jub balaa egg milliard dana doy waar waaw milliard boo ko amee waaye waaye noppi ngaa deew xiif waay bu dee am nga wér doo ko jeexal boo ci dundee ni waaw la nga cay wut di ko ci teg lu muy jariñ miraas dangay ngay sonal ñi miraaskat yi rek <clears throat> te ñu ngi ko fi bàyyil duñ la gërëm lu ñu donn ba doyal ñi donni oto donni kër la ñuy mujjee jërëjëf góor gi yal na ko nag déet góor gi daa mën a yàq sax waaye kon dina fi bàyyi lu ëpp lii may na diw kër may na diw oto may na diw nangam bu ah bu mënu woon yàq sax dana fi bàyyi loo pëli lii lii sa ngërëm kon nag jarul taal sa bàmmeel jarul taal sa bàmmeel li nga am lekk ci mu rees lekk ci jaamu ci yàlla mu rees li ci des nga def ci ko yoonu yàlla mu xaar la ca bàmmeel ba wërsëg day wërisëg waaye du ca dugg nit ki bu faatoo ñu yóbbu ci armée alal ji moom euh, euh, ca kër ga lay des bokk yee ànd ak yow te ñu la naxee ba suul la ñibbi dong la ñu bëgg ki la gënoon a bëgg mooy dàqa suul bëgg a ñibbi jëf nag fekk na moom jiitu ji woon na ni ma nga la fay xaar te ngaa fekk kon jëf rafet na jëf rafet bala ngaa dem boo ko fekkee te baaxul danga mel ne ku la deful dara ndax noonu ngeen di nekkee ba faaw nag bàyyi ma ma dem dellu si kii déedéet amul ku xës dem dem nga ñu bari xaw koo ragal sax looloo tax ñu ragal ko ndax xamoo li nga def baax naam baaxul doy naam doyul nga xëy ni dem day xaw a doy waar mm-hmm. kon góorgóorlu ba loo am def ci bor bu dul mat loo am da nga ko cay sànni tuguti leneen kon nañuy dimbali ñu néew doole ak ñi ñu tooñ waaye dañuy gis ku ñu tooñ tooñ ku leer nañ ñu naan xam nga seeka nangam nag xam nga nag moom itam dégg ngaa olof bu ne dégg ngaa rek bëgg naa wax luñ ko wax loowul waaw bu ñuy wax li leer leer na waaye bu ne dégg ngaa am na leneen lu mu ci bëgg a dugal loo xam ni kenn wax loo wug ko man ne ku ñu tooñ nañu ko dimbali ku ñàkk nañu ko dimbali te ñu yërëm ñi nga xam ni ñi ngi ci kaw suuf doon ay jirim wala ñu doon ay armala moo koo xam ni boroom këram dafay jóge amul beneen te war a dund yoru njaboot war leen yor ñooñ nañ leen yërëm jirim yi nañ leen yërëm jóge fële tukki ñëw sa njaboot daw song la nga gis koo xam ne songul kenn war ngaa xalaat ne yow mii dana am bis boo xam ne ñeneen danañ song te sa doom du song dana am bis boo xam ne ñeneen danañ daw song waaye sa doom du song keneen noonu keneen noonu ñëpp ay dem kon li fi ne ñi fi ne ko moom nañ ko jox nañ ci jox ñi fi ne kenn waxul joxe ba ba ñàkk ba torox waaye nag mën ngaa joxe li sa xol attan ku dee sa xol attan na dara wala tajal yadaka maxluulatan ilaa unuqika waaye wala tabsutaa kullal basti fa taquuda maluuman mahsuura loolu la yàlla wax bañ a joxe ba def nii sob loxo kii ndax bañ a joxe ah nee na boo ko defee am mbugal waaye joxe di joxe di joxe ba faf ñàkk boo ko defee tam ku ñu yedd ngay doon kon wabtaxi bayna dalika sabilan rek yaay seet noo koy dunde kon nañuy nuyoon ci suñu biir ndax baat bu toll ni asalaamaaleykum mun ko xamoon dañ koy wax rek di wéy eh? gimmiñ góor musta tooñee yàlla bu ñu la sa ñaanalee mu nangu te ki lañu asalaamaaleykum da laa xëy na asalaamaaleykum nga ni ko aleykum salaam yaakaar naa mooy tane sawa sawa waa gaañ ah, la wax salaam ngeen am jàmm da ngeen a ñaan yàlla yàlla del kii leen nuyo lu ñu sopp la waaye delloo nuyoo farata la dangaa war a delloo nuyoo bu la nit ki xasee nuyoo ah da koy da koy delloo nag te na mu la nuyoo wala nu ko gën a rafet isaa huyyitum bi tax tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha boo ko mënul aw rudduha nu gën a rafet na la nuyoo boo ko mënul nag moo tax kii nuyoo itam bu dikkee ne asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñàkk a xam la ke ngay nuyu bàyyil ko fa dara asalaamaaleykum mu ne la aleykum salaam wa rahmatulah boo xëree ba ni ko asalaamaaleykum wa rahmatulah salaam wa rahmatulah barakaatu bàyyi ko fa lu mu la sute faaw ndax kon asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu daanaka mënoo caa teg leneen te boo jëlee lépp kon lañ ko waxoon ni ko delloo ko wala lu ko gën a rafet daanaka da nga koy xaw a xañ wa taawanu alal birri wa taqwa waaye wala taawanu alal ismi wal udwaan mbaax ak njub nañ ci jàppalante mbaax ak njub ak lu baax nañ ci jàppalante waaye yàqalu jàmbur ak jëw yàq derub jàmbur ak wax loo xamul nañ ko moytu te daw buñ ci jàppalante mukk képp ku ci ne nañ ko fexee xamal ni ko ci nga ne loolu loolooy xanaa ak jàppaleem lii nga nekk du loolu waaye wax lu la wóor ni dara dara du ca dëgg da nga wax rek pour pour defar affaire sa affaire wala affaire keneen yaa ngay taal sa bàmmeel bu ko defee mbokk yi nga xam ni am nañu leen muy ñu wàññiku du jóg ci nun nañ ciy topp te di leen ñaanal di leen nettali lu baax di leen waxal lu baax seen ginnaaw wa kunu ibadallahi ixwanan yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin ونفعنا الله بالآية والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبير وجوهنا وارفع درجاتنا واغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وستر سمل أعداءنا واحفظ أهلنا وأموالنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم ولمن كان حقا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين allahumma ansur man nasara diin allahumma ansur man nasara diin waxsul man xasal muslimin amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kesin. Ha, ya ya ya ya. Ne yapalım? Ya ya ya ya ya ya. Sak sak sak sak. Doğru git. Sak sak sak sak sak. Sak sak sak sak sak. Sak sak sak sak. أقبالهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المسلمين على صراط مستقيم تسيد وعزيز الرحيم لتنصر قوما ما أنصر أبا أنفهم خافلون لقد أنفهم لا يبنى جهلنا في أمنا قبل لنا فإيه غير طالبهم وجعلنا من بين أيديهم سلطان ومن قلبهم سلطان فأعطينا فهم لا يبصرون وسوى الذين أضدهم ألم تدعى إنما تنظر من يتبع ذكرى وقسي رحمن بالقيب فبصهم بمغفرة وجه كربنا أن إلى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام البيض واضرب له مثلا أصاب القرية طيس جاء مرسل عصانا إلى إلينا فكسبوا وما فضلنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنت إلا رحمن من شيء أنتم علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لن تنتهوا لنتمنكم ولمسلكم من عذاب الأليم قالوا طائركم معكم أئن سكتم بل أنتم قوم مدرجاء من المدينة قال يا قوم اتبعوا مرسلون قال يا قوم اتبعوا مرسلون اتبعوا لكم أجرا وهم متنماليون لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذه من دونه آلهة أقمن من دون الله تغني أسفاتهم سيف لا يكون إلا إنسان لفدلهم إني آمنت بربكم فاسمعون قل أدخلوا الجنة قال يا الله تقوم يعلمون بما قبل ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا لقوم من بهر من جد من السماء وما كنا مسلمين إن كانت إلا سيئة واحدة سبحان قال بي عصة عن البدي ما يأتي من رسول إلا كانوا به يتسئون يشاءون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا قدر وإنهم الأرض ميتة أهينا وغرنا من عبد من يأكل وجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلن من ثمره ومن أيديهم فلا يكتب الذي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يهلم لا يهلم لا يهلم نصر من نهارا فإذا مسلم والشمس تجري مستقر ذلك تقدير عسى والقمر قدرناه منازل أتهدك kadu joonil xaddib lasam yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala laylu saabiqu kullu falak yasma'un wa yad'u amalna sughiyatihim mas'un wa khalaqna lahum min misli ma yarkabun wa in nazaghnahum fala sariqa lahum wa lahum yanqudu illa rahmatan minna matta'u ila hin wa idha akhlu ittaqu ma bayna yadayhim aqbahum la'allakum turhamuna wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idha qila lahum anfiqu ma razaqnakum qala alladhina kafaru lilladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum la ta'lamun illa antum illa fi dalalin mubin yu'minun wa yaquluna ma hadha wa in kuntum sadiqin ma yansuruna illa say'atan wa'idatan تاقصهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لفقه في سوري فيسانت من الأجداس إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وهد الرحمن وسنغم من الجلد إلا سيئة وإذا هم جميع لدينا مدر فلا تسمى نفس شيئا ولا تجسون كنتم تأمون أن أصحاب الجنة اليوم في سوري فاكهون هم زاجفة على الضرائب وتقول سلام سلام سلام قولنا من رب الرحيم وامتازوا اليوم ايها المجرم على والديكم يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا عبد هذا صراط مستقيم ولقد عدل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تقتلون الجانم لتكن تبت عدو اسرى اليوم ما كنت تفعل يوم نقتم على فاهم وتكلمنا ايدي وتسد ارجل لما كانوا يكسبون ولم نسعوا لتمسنا الا اهنا فتبوا الصراط فنيبصرون ولم نسعوا لمسعنا على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون من امرنا ندخل في قلق فلا تكونوا علمنا او سيئرا وما ينبغي له إن هو إلا سكر القرآن بلتسر من كان حيا ويقول القول على الكافرين أولم يرى أنا قلنا لهم ما عملت أيدينا عن عمد وهم لا مالكون وزلنا لهم من ركوبهم ونا يأكلون ولهم فيها منافع مسارب ولا يذكرون وتقسم من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مدرون فلا يزنك قولهم إن نهنب ما يسرون ما يهلون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسم بين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من ليس وحي رميه منقذ يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الرجل تقدر النار بجعل منه توقدون او ليس لي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثل بلي وهو الخلاق العليم على ان يخلق مثل بلي وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن ساواج سليم لك سك yan yàlla yee sëñ bi dal ci yow ak bépp sëñ bi ñu ngi lay siyaar inama am roo isa arada sañ aqluhu kun sañ ma dikka saj yàlla sa borom yeesal jëggal ji yow lépp lu doon nekk inama am roo isa arada sañ aqluhu kun sëriñ bi ñu ngi lay siyaaree yàlla na sa borom yeesal jëggal ci yow ak bépp julit bu nekk ci biir dara yonent bi alayhi salaam waajur yi ma la joxoon bàyyi amari jaay yaa ma ne soxna ma dem ba jaay mas bàyyi sëriñ jaay joxo bàyyi bàyyi am la jaay bàyyi ko mbokk jaay bàjjan yaa soxna Diouf ngoom yaa Xadi Ngom yaa Nagoy Ngom yaa Fatou Ngom Ndiébé di jaay Seex Ngom di jaay Alsan Ngom di jaay Jib Ngom di jaay Ilman Ngom seen xeetu ndey bi suuf seen xeetu bàyyi xeetu yonent yàlla Muhammad bi nekk ci biir suuf yal na yàlla def ci ñun bi gàmm gi subale sax xalifa bi sëriñ Mouhamadou Mourtada ñu ne di la Cheikh julli na la ëpp lépp lu baax dara ji yonent bi gàmm gi fi mas a jaar gu suba gi yal na ci dàq yaa ngi ñuy dégg sa xalifa bi yal na ko yàlla defal mujj ak xéewal gën a jubale njaboot gi maasa allahu yal na yàlla yeesal jëggal ci yow maasa allahu sa jigéen ba nag ajaa daba lum yeesal na daara ja ajaa daba lum maasa allahu doom yi yeesal na daara mooy sa jigéen ba nga dëkkal yal na saa borom yeesal jëggal ci yéen daraja yonent bi alayhi salaam ina maam roo isa arada sa ñaqlu kun buur bu baax bu màgg bu maando bi jaam bu lot bi gën a bon ci jaam yaag lay ñaan ci sag mat su ñaan yal na ko nekk daraja yonent bi alayhi salaam fa yakunu fa subhaana alladi بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ربنا اتنا في الدنيا حسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا ولا تحملنا ما لا طاعه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية واليقظة متحققة آنائته بمركز الفهم والمهاني والنور أكوان المتكونة دم سائر حقي رباني الباقي الأصنام بمصر الأرباح مالئة لكل متعارض من البهور والأول والنور كلام الذي ملأت به كونك أحيطاقي بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق بالحق التي تتجلى منها أرس الأحائق هين المهار بالحق بني صلاتك الطام الأقام اللهم صل وسلم على سيدنا الحق بالحق جوز الأعظم بفائدتك منك إليك أخاذت الدوح المتازني صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم وتسليما صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسلم وتسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين fan moo dugg moom lay siyaar nag bu leen yéem moom la sëriñ bi set ñu ne kan moo fi indi teraanga ji ñu ne ah sa tubbaay góore mbenge faal ca lug teraanga bu nekk samaam jox la ko maami jëmm ji teraanga bu nekk day sa defal na ko maami jëmm ji kon lii du nu jaaxal li daal di delloo xam ne rek ifaadatika min ka ilayk séeréer na wa séeréer na la woon a gari masha Allah def nga lu sa baay bëgg lu sa yaay bëgg lu say maam bëgg waaye nag ah dina jinax noo ba noo ba ñag bi te te dëgg jëmu la mun a xanaa doon sama maam rek kon jërëjëf Fall yal na yàlla yokk garaat bi ci barki yoon ci barki Dembo njaay rek la ànd ak naa Seexu mii sëriñ bi dog dogale digganteem ak yéen te mat li mu doon moom Seexu Amadou Seck macha allah ànd ak moom ba sa biir kër nga génn nga ju bari teral ñu ñëpp teral sëriñ doyul nga ànd ñun ba nu ñime ci sa ot ñu ne la wàññeeku nga ne déedéet su ma mënoon sëñ bi dama ko yóbbaat ba ci biir néegam ndax loolu rek ma ciy doy jërëjëf Fall teraanga nga na yàgg ci yow ci barke yonente bi alayhi salaam yéemu nu milliard boo ku fi indi woon sëñ bi du ko yéem dërëm boo ko fi indi woon doon ko wax xeeb lu wax démb gisaakumulaa on a xayri gisaay kon sëñ Moutalla talaañ lay sant di la gërëm bu baax taaliba yëpp ñu ngi ñaan di la sant di la gërëm loo man ren yal na nga mën déwén lu ko ëpp ci dara jërëjëf alayhi salaam yëpp tàllal leen ñu ñaan min jërëjëf Mamadou Moustapha Fall min min yàlla ba fi sa baay bu baax nga yàgg koo teral min jubale laak sa soxna su baax min min min min amin rabbi min yan yàlla nangu ñaan yi ci barke yonante bi kon sëñ Seexu teraanga yaag noonu bisimilah rek jóg yow gis nga jaaj yow yow da ngay avancé rek ak sa sëñ bi nee na jasaakumulaahu xayr jasaay jaaj mi ngi doolee sant bu baax gërëm bu baax di yeesal sa digganteeg moom bu baax fa tubaaraka laaw nu mu ci def ren xeeb na ko bu déwénee nu nga ma bëgg nga nag yaram xaw na saayir ko xool xam ko ci waaye ñaanal na mu yàgg fi lool ndax yàgg fi la sunu njëriñ la sa njëriñ la njëriñu adduna bépp la njëriñu ku ko xam la itam ndax li nga xam ne xam na ko di ko def ci doomu aadama bii te nga wax gii ma koy wax sax daa munta ñàkk rek waaye sax du ko neex. waaye mi ngi yees dolli yees lu yees lu bu baax a baax di sakku yit ñaan di ñaan yow mi mu dee delloo ñaan yàlla nga suba jur yu mag yi aw fan. li fi mag ñi bàyyi woon yàquloo ko sa maam ko fi bàyyi wan jugu fi bàyyi ko fi sa maam jugu fi bàyyi ko fi sa maam jugu fi bàyyi ko fi sa baay te yàqulu dara sek moor yow mujj yow bi mu dee yàlla yàgg sa loxo yi. doomi ñëy ken du ko ñaanal don da nga ko ñaanal gudd fan rek man sekk fan gudd rek laa lay ñaanal. yàlla mi yor fu mu gudd di ko ma yalwaan nan ko ci mbarke Muhammad Rasulullah yal na ko sarax nu teg ko say loxo mu teg ko say loxo nga gunge njaboot yi bañ nga ma yàlla nga dul téeméer yet te naag bañ a tële yàlla na ko denc na ko du dara ci moom yal na ko defal defal ko parce que bam xayta fekk moo di ngóor li nga xamante ne si alaaji moo di yéene na ko ci kër gii yal na ko yàlla yokk fa aw fanam ba mu ak ba mu ko ci li mu ko bëggee dese na de man mi wax ak moom de xam naa ne na lu mu si te yëggu ko kon nag yal na ko yàlla yokk aw fanam ba mu yegg ca. amiin yaa rabbi sekk moo di ngóone waa li mu wax woon ba bëgguñ saraaku ci lépp ëpp na sax waaye daanaka li may bëgg a wax rek mi ngi sa dënn xam nga ko kon bu ñu yóbboo gàttal ko foofu sekk moo di yal na taxawaay bi yàgg. amiin yal na sa bunge sori. amiin ak sa mbooloo mi julli. amiin mbooloo mi la daal di fekk tar fekk waxtaan wi di dégg li ñuy wax. ñoom yi yàlla lépp luñ fi jëriñoo mhm. yéen ko andi ko bu yàlla bu leen si kenn ëppale waaye li waaye ci kaw waaye kër maam Amari Ndaak Ngoone Ndaak yàlla bu leen si kenn na ko si nadd ba doy la fa tabaarakallaahu nanu la sa baay daa wax na ma si yàlla ruus sa maam Asan Yàlla Fasek bu ma saa tiim koy li nangam da yàlla na si yàlla ruus waaye yow mi Alaaji Moodu Njaay mi yàlla na si yàlla ruus ba yàlla yokk aw fanam ba mu gudd yàlla na si yàlla ruus nanu sant nanu jërëjëf Diagne masa allahu kaddu yi rafet na yàgg nga ko indi yan na ko yàggaat indi ci daraja yonent bi. loolu nga wax ci El Hadj Modou sàkk ko ci moom sëriñ bi daan na ko ñaan dina ko dolli yal na ko fi yàlla bàyyi defal ko wér. amiin El Hadj Modou nag daa def li ko war rek. dëgg la macha allahu liminaat bi ñu tiimoon léegi doon ko seet. dëgg la sëtub góore mbenge indi ko fi. dëgg la nag wii sëtub góore mbenge ku fi indi. la muy El Hadj Modou Ndiaye. la. macha allah muy nit ku am wëllëre. dëgg la bi nekkee tout tànk di jàng fii. Mhm. jamono yi soixante dix soixante huit da fii daan na fi am lu mat weer fi la daan nawet. dëgg la di jóge France ñu njëkk a gis ñuy dem France ka ñëw ci la bokk. waaw waaw mais bu masaa ñëw vacances. fii lay ñëw ci biir kër gi. dëgg la macha allah du sol dal du du du du sol dal macha allah di ànd ak ñun neexu leen. di bay koy di lekk li ñuy lekk di naan ci li ñuy naan. billaahi laa wax. dëgg la kenn du ko waxal lu mu deful moom El Hadj Modou. dëgg la macha allah ñu xam xam-xam gu wér nag. ndax lu ëpp ñaar fi kat dëkk na ko suñu kër baay. dëgg la Moustapha Sase Serigne Madické nee na. dëgg la Alaaji Modou Ndiaye lu mu def yàlla tax. dëgg yàlla rek a tax. taxu yàlla nag. Ah. moo gën ci def yi. ndax taxu yàlla du fees. du bënn du màgget. beneen tax bu mu man a doon. Ah. ñett yi dina la benn dina la ci dab. waaye taxu yàlla ñett yi benn ko ci dab. kon taxu yàlla bi muy def. ma ah. macha allahu borom tax bi gis na ko yëg na ko. lii nga wax mooy dëgg. lu mu def bëggul ko ko wax. lu mu la jox bëggul ku ko wax. waaye nag loolu la aaya ba jàngale. ki def na ni miig. ki defal na wax loolu rek a waral wax yal na yàlla defal mbiram barke liggéeyam barke njabootam gu baax gi muy Ibrahima ak daam mi nekk ak moom mu meññ leen te muy liggéey ak ñoom leen ba leen fii di dem ak dik yal na yàlla barkeel seen mbir ci daraja yonte bi alayhi salaam sëriñ bi ñaanal yàlla nangu jërëjëf amiin mu ne nga waxal ko alaaji Moodu Njaay ne ko sëriñ baa ngi dolli di la nuyu di la siyaar ñun ak njabootu ma Madické gi yëpp delluwaat di ko jaajëfal ci taxawaay yi delluwaat di ko ñaanal yàlla teg ko ca ñaani démb yaag bërki démb jaajëfi démb yaag yu bërki démb sunu xol sedd na ci moom démb laataa tey taxawaayu dembam yaag bërki démb mooy taxawaayu teyam bi dara sensiwul te it ëllëg mooy doon taxawaayam ndax mm, alaaji moolu moom ndoxum mutlax la rek ku ko xam xam ne lépp lu mu def bëggul ku ko yëg lu dul ki tax muy def muy yàlla kon ba noon koog yàlla mi tax muy def yal na yàlla gën a guddal fanam yàlla dool wéram yàlla dool sutur bi yal na yàlla dool xéewalam barkeel liggéey kontaan nañ ci moom kontaan ci njabootam sunu xol sedd na ci moom ñu ngi koy bàyyi xel saa yu nekk. Ah, lii daal lu mu gàtt gàtt ci kàddu ah lu ñu tënk la. ci lu bari ci loo xam ni. mi ngi ci suñu biir xol. te mënuñu ko génnee. waaye ñu koy mottalee ñaanal ko yàlla. yow mi jaañ daan ko indi yàgg koo mi sëriñ Madické. yàlla jubale la moom lool. mu wóolu la lool. yow nga mat ndaw li nga doon. am ci yéene lool. ñu ngi lay san ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu sa taxawaay di ñaan seenub ànd yan na ko yàlla saxal yàlla dolli wér gi nag sa sutura tiyaabay bis bi lépp luñ ci am yan na yàlla boole nu ko yéen ci daraja yont yàlla muhammad alayhi salaam yan na ko yàlla def amin sallallahu alayhi wa sallam amin yaa rabbi yal na yàlla nangu ñaani yi na yàlla nangu lépp na yàlla nangu ñaan yi jërëjëf Jaañ bu ni jaay Modou di sangub sëriñ ma dikkee moo fi indi nag wii nag wii moom ma ji jaañ fadaa ko fi indi macha allahu ah Mouhamadou Moustapha Diop nag def na li ko war sëñ ma dikkee ne woon na sang buy sange la waaye allahu yal na yàlla yokk garaatam dolli ko wér moom Mouhamadou Moustapha joob bu dee moo di xëri Diop defal na ko ñu sant Diop ñëpp door ko mu jóg dàq boroom këru Ndoumbé Mbuub mi ñëpp xam ci baax moo indi nag wee nag wii Moustapha Diop duwaañ doomu nijaay moo di xëri Diop di magu nijaay Ibrahima Diop ñuy nijaay Serigne ma dikkee moo fi indi nag wii nag wii Momadou jaañ Fada directeur Sonacos di nit ku baax maa sha Allah di président waar wi